asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jëwri ñu ngi lay siyaarewaat baax di la jox sa wàccuwaay euh, si am mbégte kontante bu baax a baax si euh, dalal gi Mouhaïbou TV di la di rafetlu liggéey bu am solo bi nga xam ne yaa ngi ko ànd ak waa xidma Masaalikul Jinaan si kàddu gi Mbay Touba jëwriñu organisation Masaalikul Jinaan xidma feggoog euh, sëriñ daam seen discipline ma xam ne moo yor wàllum lépp loo xam ne dañ koy saytu si biir liggéey bi liggéey bi nag si organisation koor gi dirug li jitu koor gi xamni ni semaine 3 semaine ñi ngi and ak hygiène daar ji di sétal lepp lo xamni mo moy barap ci si ji ndax ku ne xamna ni juma dafa laaj set rawet nak ñuy wajal wéru koor wéru koor yi xam ne gan gi xamni moy ni mooy gi Sëriñ Tuubaa fonk muy wéru koor si wér yi ñu bokk wajal di ko boo depuis bon woré rek yakana ñi ngi si juroom benn fan ci tay wala juroom suma jumul kon ar bu ñu 14 heures dañuy commencé jangum alquran mi ku ni koor ni alquran ku mi sokki dal bi nga xani mo nek ci daari daara xidma masaliku ñaan euh, jëriñ siñ Cheikh Baye Fall jité ko ak ñim ko andal ak mbokki talibé yi dañ fi jang ay lim ci xasida jang ko ay lim ci alquran ak salatu ala nabi ba koor gi commencé ba légui euh ñu joggé ci lolu 15 h ñu commencé ci li nga xani moy walum ndogu yi mburu mi ak lami andal ci xéetu berne xéetu xewel yi andal ma buñ ko non lim mucc na ayib euh buñ demee ba 16 h c'est la commission organisation àndaat ak commission logistique bi nga xam ne moo nekk si biir organisation si wàllum napp yi napp yi bu ñu ko waxee muy saal bu mag bi ak ju ñeenti saal yi nga xam ne ñoo séq euh, jumaa ji ba si kaw fépp foo xam ne elem euh, mbokkum taalibe war na faa toog rek dinañ ko defar defar bu mucc ayib ak la nga xam ne mooy xeeru si berne ñu def ko sax 18 heures euh, la collation war a ñëwaat àndaat ak mbokki taalibe yi si wàllum tàndarma ji wàllum ndox mi ak waajal café gi ak mburu mi sunu jullee ba pare ñu àndaat ak daare ji ak waa xidma ramasser lépp loo xam ne mooy matériel ak fu mu mën a nekk si jumaa ji ñu dajale waat ko indi ko yóbbu ko hygiène hygiène bu ñu ko waxee mooy seetal waajalaat ko mu jëmaat suba incha allah noonu lañ ko fas yéene àndandoo si diiru 30 jours bi ak bu weeru bu koor gi jàll tamit xidma day continuer waat liggéeyam. xañ na biir koor gi liggéeyam day gën a bëri gën a am solo waaye ñoom fekk jumaa jàng si xit maa ngi si biir jumaa ji ginnaaw bu naafila ba pare nag si leen di joxee reer ndax daayira xidma yemul rek si ndogu yi day def ay reer yoo xam ne ñi nga xam ne muy mbokki taalib yi doon naafila ak dëkkandoo yi ak mbokki jullit yi nga xam ne yaakaar nañ ko fi bu ñëwee jox leen reer yu mucc ayib ginnaaw bu reeree ba pare nag dañ daal di yéwénal yeewi mbooloo mi waajalaat jëm suba maanaam liggéey bi noonu lay doxee diiru weeru koor gi diiru 30 jours noonu lañ ko waajal suñu yitte yëpp ñu ngi ko joyal si liggéeyal Cheikhul Khadim ndax man ñu ngi koy royee si maam Cheikh Ibrahima Fall ndax képp kuy joxe ndogu si Cheikh Ibrahima Fall la koy royee ndax moo ko jëkk a joxe kon dañ koy barkeeloo si Cheikh Ibrahima Fall di ko si roy te di ko dàkk na jublu ko def suñu yitte def suñ suñ pëseef di woo mbokki taalibe yi nag di woo jullit yëpp rawatina mbokki taalibe rawatina suñ mbokki murid yi nga xam ne ñoo bokk Sëriñ Tuubaa te mënuñu ko séddoo kon ñu ngi woo ñëpp si liggéey bi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu